mbokki internet yi ñuy seetaan ci NGTV Sénégal tey nag ñu dalal Moustapha Amar responsable politique de la coalition Yewwi Wàllu Askan Wi fii ci commune Koul Moustapha Amar nuyu nañ la. ñu ngi leen di fay di nuyu mboolem ñi eh, waa seen mbokku internet yi eh, vraiment di rafetlu dalal bi di am bu baax eh, bu mel ni. comme ni nga ko waxee xanaa ñu rectifier rek parce que au lieu ñu nekk responsable euh, coalition intercoalition Wallu Yewwi euh, ñun ñooy man maay Moustapha Amar di responsable PUR commune de Koul di coordinateur coalition Yewwi Askan Wi waaye di vice coordinateur coalition intercoalition Wallu Yewwi euh, ñu ngi nuyu bu baax monsieur le maire Moudou Fall bi nga xam ne mooy suñu coordinateur intercoalition bi vraiment ñu ngi koy nuyu di ko jaajëfal Eh, am na solo bu baax kontaan naa ci seen dalal bi. merci beaucoup léegi sëñ Moustapha ñun li ñu jaaxal léegi ñun nañ lañ mën a comprendre le fait que ngeen ni wàllu Yewwi ñoom ñaar ñu boole leen ci même ndënd bi bëgg koo samp euh, ca assemblée te loolu bokkul woon seen i principe au début parce que yéen di ngeen doon ŋàññi politique bi fi nekkoon léegi nag su ngeen demee ba jaxasoo ak ñoom day mel ni la ngeen doon bañ ba léegi. ci lañ leen gisaat ngeen commencé ko ca kaw ba seen liste nationale amoon ay problème ba sax seen liste nationale bi suppléant yi moo mujjee jàll loolu noo ko mën a jàngatee. xam naa xam naa ci coalition yi laay commencé parce que dafa mel ni bi ma commencé ba léegi donc ay coalition laa lay tuddal euh, coalition bi bu ñu taxawee ci yeewee askan wi rek foofu la ñuy commencé wala boog wallu euh, boo seetloo ni parti politique yi rawatina pur bi nga xam ni ci la bokk boo seetloo élection yi passé yëpp dafa doon dem àndul woon ci benn coalition mais élection yi ñu génn ba ci élection yi ñu nekk nii dafa dafa wuute ak élection yu bëri parce que euh, mën naa ne raw gàddu xam nga élection euh, bo seetloo yi ñu génn euh, fii ci département Tivaouane rek donte coalition Yewwi Askan Wi ay parti yu bëri ñoom ñoo ko seq mais fii ci tiwa Tivaouane résultat bi élection bi Yewwi Askan Wi am ak résultat bi Wallu Askan Wi am boo ko wàllu Sénégal am boo ko boolee moo ëpp li fi Benno Bokk Yaakaar gagné et alors Benno Bokk Yaakaar. est-ce que tamit nekku leen di lëndama xel ñi par rapport ak. li fi jot a passé. ndax jàpp nañ ni yéen da ngeen a ñëwoon def ay indi ay réforme wala def leneen ak leneen mais su ngeen jëlaatee ñi fi nekkoon ngir boolewaat ak ñoom day mel ni daanaka. cest benn soppeeku bu ngeen ci war a. dawal daal. c'est-à-dire gisoon ni yéen da ngeen a nekkoon ci benn lancé boo xam ni da ngeen a demoon ak seen bopp. élection yi passé ngeen am ay député mais dañoo gis ni affaire bi affaiblir ngeen di wuti fu ngeen jokk daal man loolu loolu lañ mën a jàngati mbir mi. cest à euh, xam naa pour leeral la rek xam nga dafa mel ni da ngay ñëw ci wàllum programme wàllu doxalin ci yu baree bari mais ma lay leeral rek par rapport ak élection yi ak coalition yi ndax coalition yi soo umpale woon ni euh, benn Bokk Yaakaar bii fi nekk sax coalition la waaye mi ngi dajale PS ak yeneen parti yu baree bari léegi ni nga xam ne noonu la élection yi tëddee élection législative yi élection yi raw gàddu la tey bu fekkee fii ci département woon tey Yewwi Askan Wi am na vingt neuf mille voix euh, Wallu Sénégal am euh, vingt mille voix gox yu bees am gëm sa bopp ak yeneen ak yeneen donc loolu li muy bëri bëri bu Benno Bokk Yaakaar ñëwee am trente mille voix rek dafay jàll parce que raw gàddu la euh, ma ma ma ma ma complété ma àggale parce que man su ma déggee ni ngeen di waxee day mel ni yéen li ngeen bëgg nangul leen ko état bi ndax bi nga xamee ni gagné waat na ba jëlaat ñi nga xam ni ñoom la nekkaloon di liggéey dolliwaat ci ñeneen da ngeen ni day def mburoo soow nangam nangam te yéen foofu ngeen jëm ba pare yéen di ko bañal ki fi nekk loolu tamit neexut a comprendre daal ci seen mbir. may ma ma maa leen pour mu leer parce que dama bëgg a leeral tuuti mbokku internet yi ah. ok xam nga xam lii lii faral di am li tax coalition bi am moom laa lay wax moo tax ma ni la boo xoolee vingt neuf mille voix la Yewwi am vingt mille vingt cinq mille voix la Wallu Sénégal am loolu rek boo ko boolee dafay raw li Benno Bokk Yaakaar am ci fii ci département Tivaouane mun naa ko wax ci yeneen departement yu bëri mais tey boo xoolee ak gox yu bees yi gëm sa bopp nga xam tey ñi ngi ànd ak ñoom fii ci département Tivaouane boo seetloo loolu loolu mooy sababu coalition yi parce que même Benno Bokk Yaakaar nee la ñu demee comme raw gàddu la raw gàddu bi ci quarante cinq quarante six yi ak diaspora bi tamit nga xam ne daanaka cent douze députés yëpp ci raw gàddu yi lañ koy fale maanaam département bu ci ne benn parti bu rawee wala benn coalition bu rawee benn bat benn voi comme tey mu am trente mille voix yeewi ñëw am vingt neuf mille voix kee ñëw am vingt neuf mille voix lu ñu lu muy bëri bëri opposition bi lu ñu lu ñu bëri la bëri le terewul Euh, Benno Bokk Yaakaar dafay gagné moom mi rawee benn euh, voix. donc donc léegi léegi pour ma leeral. Euh. donc ban pour ma leeral. cent douze députés yooyu. Mhm. nga xam ne ci département yi lañ leen di fale. cent douze députés yooyu. Mhm. loolu moo tax ñu defoon coalition ak Yewwi sax ci élection yi passé mhm. maa ngi la koy wax sànq ba gagné ci macha allah ñëpp gis nañ ni mu tëddee. waaye tey ñu yokk doole ji def intercoalition. intercoalition bi nag xëy na ñu bëri dina leen xaw jaaxal tuuti. Euh, mais compliqué wul ndax tey boo xoolee fii ci département Tivaouane mën naa ne sax région Thiès waaye waaye ñu ñu ñu ñu tëj euh, ak liste nationale yi jàll ci euh, loolu moom loolu moom jàpp naa ne Sénégal yëpp ñoo ci bokk nuñ ko jàngatee ba ci borom xam-xam yi nga xam ne seen xam-xam mi ngi màcc ci wàllum wàllum yoon mm-hmm. ñëpp jàpp nañ ni lañ ko mës a gis te jàpp naa ni ne ñu ci wax lu ci luñ ci waxul woon mm-hmm. ndax euh, gis gis gis nañ ni kay wax dëgg yàlla mhm. teguwul fenn waaw loolu moom jàpp naa ndax bu fekkee dëgg nga borom xam-xam yi ci seen xam-xam ma ci yëpp wax ci loolu jàpp naa ne luñ ciy waxaat sax amul waaye waaye waaye li am solo waaye li am solo li am solo foofu ci liste nationale mais li dégg wax euh, da nga ni yoon kon yow jàpp nga kon élection yi sax naa bañ li am solo mën naa bañ nga gis nga gis nga li am solo foofu ci list nationale yi. am ah. solo foofu ci liste nationale xam nga yaa ngi wax sax liste nationale yi yi dem te titulaire yi demuñu. Mhm. am na lu ko jiitu parce que Benno Bokk Yaakaar waruloon bokk ndax naa am dafa ëpp foofu rek doyoon na ndax loolu gis nañ fi mu éliminer woon ay candidats ci élection yi dañu génn xam nga kon loolu jàpp naa ne doyoon na sëkk mais li am solo mooy élection yi comme ni nga koy waxee ndax dina jaar yoon ak du jaar yoon li am solo mooy coalition bi njëriñam ba tey ma ñëw foofu léegi tey boo seetloo dañu doon dem ci yenn bureau de vote yi dañuy xaw a am jafe-jafe. Mm-hmm. Ah, ndax taxawu élection yi tey PDS mën nañu jaar fii baaw ko wëllu yeewi askan wi jaar fii ay ay manquement am ci mais tey bu ñu boolee suñu doole eh, jàpp naa ni taxawaay bi dina am solo kon tey élection yi moom jàpp naa ne. loolu loolu mënul am na ci loo xam ne mënul nekk parce que duñ ko seetaan léegi li am solo mooy comme ni nit ñi xaw a jaaxle tuuti ci intercoalition bi loolu lañ bëgg leeral ndax tey boo xoolee fii ci département Tivaouane ñu gis ni wallu ak yeewi foofu laa jëm si woon ak yow dugg ci loolu noonu mhm. maam nan nga jàngatee démembrement départemental yi ndax am na ñoo xam ni ci seen biir coalition bi nee gisuñu ci seen bopp da a jël place yu baax ko ñenn ñi ñenn ñi gisuñu ci seen bopp fu ci mel ni Thiès gis ngeen ni mu demee loolu tamit. xam nga par rapport ak euh, ni ngeen ko. xam nga xam nga daam ku ma am nday ku ma amul nday ci biir coalition bi. xam nga cent soixante cinq député cent soixante cinq. loolu boo leen boo leen dafa waroon na bokk. cent soixante cinq boo leen boo nit mën na ñëw gagné maire ville bu toll ni Thiès. ngeen ñëw ci liste nationale yi ngeen koy beddi di ko kiyal. xam nga loolu moom xam nga kenn mënu koo rafetlu daal xam nga xam nga 165 député monsieur le maire Modou Fall ñu ngi koy nuyu di ko ziar ba dafa dafa am solo nee loolu moom xel nanguwul sax nga bëgg a wax ni eh, ñëpp ñëpp bëgg taxaw nii dañ ma ci dañ ma ci war a boole 165 cinq 165 député ci ci réew mi yëpp ñu bëgg leen tànn ci benn réew. ñëpp bëgg cee bokk loolu jàpp naa ne xel na xam ne na mën nañ eh, bi ci ma àggale rek bi ci des ci des bi ci des baal baal baal ma mënuñu ko ma leeral la rek xam nga tey boo xoolee leader yi nga xam ne ñoo nekkoon ci yeewi askan wi leader yi nga xam ne parti yi nga xam ne bokkoon nañ ci yeewi askan wi nga xam ne ñu ngi ci conférence de leader boo leen eh, limee seenub lim takku na lool ah seenub lim takku na lool donc su fekkee da nga leen eh, boole donc euh, jàpp naa ne bu fekkee da nga leen def ci liste nationale bi ñoom ñëpp sax dina ci ñoo xam ne dinañ xaw a sori ah, xam nga kon loolu moom vraiment euh, xëy na loolu moom tànn la loolu sax dépensé nañ ko fi ne nii li ma ta leeral wax dëgg yàlla te moom laa bëgg soo ma ko permettre ma leeral ko. Ah, mooy mooy mooy entre euh, coalition Yewwi Wallu entre coalition bi dafa am solo. ndax tey sax bëggoon naa ci ñëw ci lu gën a ndax département yi ni ngeen ko tëggee dafa am département yoo xam ni. liste wàllu la ñuy woote ñii liste yeewi mhm. loolu war mën na indi jeexi jaaxa ci ñiy voté mhm. aussi mën na leen indil benn pertement boo xam ni parce que nit war na mën a mhm. voteel kii jàpp ni kee lay voteel fu ci mel ni yenn communes yi nga xam ni wàllu dafa am doole ngeen jël liste yeewi ñu war ko faa voté nga nit ki nga ni ko doo voteel wàllu loolu day indi ay i jaax nit ñi loolu nan nga ko mën a jàngate par rapport ak seen coalition bi. waaw loolu xam na xam dégg sax mën na ko jaaxal mais ñu nekk ci base bi moom du leen jaaxal parce que tey mën nañ bañ a wax ci département yëpp parce que loolu gis naa ni ñi ngi ciy def ay video ñi ngi leeral nit ñi di sensibiliser nit ñi mais bu dee fu mel ni fii département Tivaouane nga xam ni foofu lañ nekk euh, boo seetloo département Tivaouane euh, nga xam ni bulletin wu Yewwi moo porté bannière bi bulletin wu Yewwi moo porté bannière bi euh, tey boo ñëwee gis nañ ni fii ci commune de Koul ku ne xam na ni commune bu PDS di gañe la waaw commune bi monsieur le maire Modou Fall bokk ci wàllu Sénégal moom moo ko jiite élection yi ci mujj moom moo ko gagné donc kon commune la bu sopp Ablaye Wade léegi ñoom bu ñu ñëwee fekk bulletin Ablaye Wade xëy na loolu comme ni nga ko yaakaare war na leen mën a jaaxal waaye déedéet du leen jaaxal parce que lu tax du leen jaaxal mooy. effectivement parce que am na ñoo xam ne ñoom jàpp nañ ni euh, suñu waree woote rek suñu gisee bu wàllu moom. yaakaar naa ni boobu la gën a sawar ko yeewee. Eh yi ci biir département bi donte fii nii gis nañ ni bu baax a baax Yewwi Askan Wi moo dominé département bi am na ci commune yoo xam ni nit ñi duñ mën a comprendre lu tax ñoom mënuñoo voter euh, wàllu askan wi. xam nga xam nga xam nga commune de Koul bi ñu ne ci laa ñëw commune de Koul bi ñu ne. li tax loolu du ñu jaaxal mooy comme gis nañ ñi vraiment base bi am na fi doole te ñu ngi responsable yëpp moom xam nañ li xew donc te dinañ ci waxtaan ak population bi yëpp dinañ ci liggéey liggéey bu mu ci ayib bi nga xam ne moo porté bannière bi bulletin yeewi askan wi bulletin bi ma ma ma wan la ko sama jumu bulletin bi mu ngi nii bulletin yeewi askan wi mi ngi nii bulletin yeewi askan bi nii boo seetloo ñaari ñaari ñaari ñaari député yi nga xam ni parce que fii département Tivaouane ci département bi ñaari député la ñaar ñi góor la ak jigéen ku góor ki ñu ngi koy wax Massata Samb ku jigéen ki ñu ngi koy wax Fatou Gaye Massata Samb mi ngi bokk ci yeewi askan wi faatu gay mi ngi bokk ci wallu Sénégal ñoom ñaar ñoom ñaar ñooñu pour ñu jàll liste bulletin bi rek lañ leen lañ leen mën a voteele loolu yaakaar naa ne képp ki nga xam ni yow bëgg nga voteel euh, euh, wallu bëgg nga voteel soxna faatu Gueye pour mu jàll jàpp naa ne xam nga ni bulletin bii buñ ne la moom rek nga war a voté pour soxna Fatou Gueye jàll. yaakaaroon ne loolu day gën a compliqué. non du compliqué non du compliqué du compliqué. coalition bi non day mel ni ñoo xam dañuy ragal a seen ginnaaw. non du com du compliqué. loolu lay nuru ci yenn diwaan ndax soo xoolee. su ngeen ko defoon benn bulletin unique. ñàkk ñàkk a juboo ak ñàkk booloo bu am seen biir moo waral lii. loolu la ko nit ñi mën a jàngatee. ndax su fekkoon loolu lépp am na ci benn bulletin lay doon ngeen tuddee ko benn tour day mel ni ku nekk da ngay défendre say intérêt ci biir euh, coalition ba léegi. non xam nga du soo ku ne nangoo joxe sa part. xam nga fu mel ni commune Mbacké wàllu ngeen fa teg ndax moo ko moom commune yeneen ak yeneen noonu ngeen ko tëggee mu doon lu xam ne daal. xam nga xam nga xam nga pour pour wax la rek pour wax la ne du compliqué ndax sànq yaa ngi wax commune Mbacké euh, département Mbacké bopp département Mbacké Yewwi moom moo ko woon élection yoo ñu génn donc terewul euh, bi passé bi tey wolu lañ fa teg pour wax la ni loolu moom compliqué wul li am solo rek mooy su fekkente ne ñii nga xam ne ñoo nekk ci base bi rawatina fii ñu nekk ci commune bi. ñu xam ko li ñu xam li responsable yëpp xam te ñëpp bëgg war ko xam mooy que bulletin bii nii muy bulletin Yewwi Askan Wi ci la maram Soxna faatu gay nekk bokk ci Wallu senegal ci la Massata Samb nekk bokk ci Yewwi Askan Wi ñoom ñaar ñooñu lañu bëgg mu jàll raw gàddu la élection yi passé li ñu am boo ko boolee muy Yewwi ak Wallu kese moo moo moo ëpp li Benno Bokk Yaakaar am waxuma la nag gox yu bees vraiment ñëw nañ waxuma la aussi euh, euh, gëm sa bopp ak yeneen ñi nga xam ne vraiment ñi ngi ñëw leen jàpp ci léegi loolu ñëpp xam nañ ko jàpp naa ne responsable yëpp xam nañ ko te aussi dinañ ci waxtaan ak base bi ba ñëpp xam ko mais li ma ta li ma ta leeral daal mooy fii nii ci département Tivaouane képp koo xam ni kuy voté ak loo fonk-fonk Abdoulaye Wade loo ko bëgg-bëgg ak bëgg mu gañe bëgg ndamam bulletin bi ngay voté léegi waxtu bi ñuy xoj xam naa dañuy dënk kàddu rek nga jëmale ko ñaari question yoo xam ne mënuñu ko bañ a laal ndax gis nañ ni commune bi tàngoon na ñaari weer ci ginnaaw yéen ak wàllu gis nañ ni mu demee woon ku nekk di ŋàññante di xarabante ci loo xam ni lu matut eh, ñaari weer ñu gisaat ngeen ànd mel ni ñu mus a kii loolu tamit daal loolu lëndëmal la xelu askan wi ndax soo musaana jaar fii wala jaar fee daanaka ay xarabante ki ŋàññante la daan doon mais tey ji a booloo loolu moom askan wi nan lañ koy mën a jàngate ginnaaw bu ngeen boolawaatee. c'est-à-dire euh, ñu politique daal da ngeen di ànd di raayalante ginnaaw su ngeen tàggoo di martante loolu. cest dire a jàpp. cest xam naa xam naa ànd di di bi moom amul woon ndax euh, li tax amul woon mooy mën naa ne ñëpp xam nañu opposition bi moom ñoo bokkoon fu ñuy xeex jëmale. parce que benn benn benn problème rek la ñu am muy ñu jàkkaar lool ñu bokk ci nguur gi muy benn bokk yaakaar ñëpp xamoon nañ ko. fii ci ci élection waaw d'accord yi passé doon ŋàññi maire deful nangam deful nangam ci tey jii ngeen moom liggéey loolu ci ci yi passé xam nga kenn ku ci nekk ñun bëggoon nañ gañe yow askan wi bëggoon na gañe commune bi mais li li li gënoon yitteel opposition bi yëpp mooy mooy ku ne xam na ni ñi nga xam ne ñoom lañ jàkkaar loolu muy Benno Bokk Yaakaar andi loon ñu benn nit bu mu jëlee woon ca beneen commune vraiment indi ko fi teg ko ci kanam. non euh, waaw mais loolu loolu moom loolu moom passé nañ ko sax vraiment loolu moom. loolu moom ah, loolu moom moo tax moo tax comme xëy na xëy na na li nga dellu si ci élection yi passé xëy na moo tax sax ñu di ñu di ci dellu si mais romb nañu. romb nañu mais li li am solo rek mooy. li élection yi passé kenn ku ci nekk taxawaay bi nga amoon ak yéene bi nga am ci cool tey nga ko gën a am kenn ku ci ne bi ñu dajaloo ñun ñëpp muy même sax ba ci waa benn Bokk Yaakaar biñ ñëwee dem élection population bi tànn tànn monsieur le maire Modou Fall ñun ñëpp dañu nekk ci ginnaawam di ko jàppale ba ci waa benn bokk yaakaar ñi nga ci biir commune bi xëy na jàpp ne commune bi dañ ko war a dañ ko a liggéey ñoom ñëpp xëy na ñu ngi ci ginnaaw monsieur le maire Modou Fall jàppale ko. Ah, kon kon loolu kon loolu kon loolu kon loolu mu ngi ci suñu ginnaaw ndax ndax jàpp naa ne juróomi at yi ñu nekk moom moo koy jiite. te aussi kenn ku ci nekk di nga ci jàppee di nga ci jàppee la nga mën loolu jàpp naa ne. est-ce que jàppoo ni population bi suñu la gisee yow responsable. bi nga xam ne yaa daan jaar fii mhm. euh, Modou Fall monsieur le maire jaar fe mhm. tey ngeen waat mhm. def benn say est-ce que nit ñi tamit dinañ gëmati dëgg dëgg politique ak li ngeen di prôné ci gox bi ndax tamit loolu nit ñi duñ ko mën a comprendre xam nga xam nga masu duñ leen duñ leen wax lu wuute xam nga li am solo mooy ñun duñu mas a wax lu wuute ndax tey jafe-jafe bi ñu am ak li nga xam ne moom lañ dëgmal te jàpp naa ne sax loolu waroon nañ ci yaatal muy élection législative yi ñu jëm dafa nekk élection législative dafa nekk élection yu am solo xam nga tey élection yooyu nit ñu bëree bari dañuy topp politiciens yi léeg-léeg ñu naa leen dinaa leen defaral tali parce que loolu ñu faral di déggee dinaa leen defaral courant nangam nangam kon dañu dañu dañu war a war a xamee ban ma àggale loolu non il faut gis nañu tamit lu ci bëri euh, Benno Bokk Yaakaar ñu ko fi lu ci mel ni wàllu courant soo xoolee dëkk yu bëree bëree bëree bëri Euh, jot nañ ci courant boobu lool tamit loolu loolu mën a rafetlu la mais dañuy gis ni yéen à chaque fois lépp lu état bi def daal yéen da ngeen naan baaxul. xam su baaxee da ngeen naan baaxul loolu tamit moom. baal baal ma àggale xam nga xam nga li ma mooy li ma lay wax sànq rek nee naa la dañuy xàmmee ci élection yi jëm ak ñi nga xam ne ñoom lañ bëgg a fal lan mooy seen rôle lan moo leen tax a jóg loolu dafa am solo bu baax a baax xam nga élection yi passé lu mel noonu dal nañu ndax ci candidat yi ba ci benn bokk yaakaar seen candidat bi gis nañ ko mu wàcc ci lu mel ni guy suux wàcce woon fa ay euh, poutalamp vraiment woo wàggu so kilifa diine yi ñoom ñëpp dajale leen xamal leen ni njiitu réew mee ko yónni dafa ñëw pour pour pour jox leen waaw mais attends mais mais d'accord mais bal ma àggale foofu bal ma àggale foofu donc cent na ni ñu ci ëpp ëpp doole bal ma àggale foofu bal ma àggale foofu bal ma àggale loolu bal bal may wax bu boo ma daggee li may wax mbokk internet yi duñ ko xam parce que gis nañ ma commencé benn benn am lu ma commencé te donc loolu dafa war a leer dama ne ñëw na guy suux aussi wàccee fa ay potolamp ñëw waxtaan ak euh, kilifa yi fa nekk yëpp xamal leen ni président njiitu réew mi moo ko yónnee jàpp na ci seen courant bañ fas bañ war ko am wàccee potolamp yeeg yooyu mais gis nañu ba leçon yi li gën a yéeme mooy fekk roñ nañ pot yu yóbbu ñu yëg ni roñ nañ ko yóbbu ci beneen commune euh, dañ leen di laaj mais ba léegi mënuñu ci indi benn explication mais li ma li a leeral rek foofu mooy mooy li ma doon wax rek ci laay dellu si gis nga élection législative yi ñëw na ngeen xàmmee député lan mooy rôlam ah tey ki ngeen amal affaire tey ku mel ni ay meeru ñing bi nga xam ne moom la ñuy bëgg a tabb ni Benno Bokk Yaakaar bokk moom la moom la def ci listam eh, élection yi kii législature bi ñu génn kaddu gi mu jëkk a wax ensemble kaddu gi mu jëkk a wax mooy Kayoor moom lépp nee na booy loolu jëkk a wax loolu man du man maa ko sos mais ñëpp gis nañ ko ñëpp seetaan aussi ñëpp ñaawlu woon nañ ko te bokk na ci bokk na ci bokk na ci rôle député bokk na ci rôle député mooy muy njàmbat yi askan wi am mu yeggale ko ca pencu ndaw réew mi waaye ak yeneen ak yeneen yoo xam ne du sax du sax departement bi kese mais ñëpp ko bokk muy lan muy réew mi caxat caxatee gi ñuy def suñu suñu suñu réew mi ñoom ñoom war nañ ci mën a am ay taxawaay ñoom ñoom ñi nga xam ne ñooy député yi di def ay commission euh, euh, enquête Euh, commission euh, euh, parlementaire di ko di di di ci di ci def ay enquête di ci di càmbar liggéeyu gouvernement bi loolu seen rôle la député càmbar liggéeyu gouvernement bi seen rôle la waruñu wax bokk naa ci nguur gi alors ministère bi ñoo bokk parti waruñu ñu càmbar déedéet loolu loolu bokkul ci li nga xam ni mooy tax assemblée bi ñu bëgg am. te législature bi ñu génn douzième douzième ma douzième législature. douzième législature bi mbokk mi lan mooy seen objectif ngeen gagné fekkee gagné ngeen département bi. nan nan ngeen bëgg a taxawe puisque nee ngeen fi nekkoon taxawaayam xëy na daa gën lu góosi xam nga mën a xam nga département bi moom benn la ci def ci département yi bi ñu war a gagné mais du doon département bi seen incha allah dañoo fas yéene am majorité assemblée waaw ñëpp li ñëpp li ñëpp di xaar. yaakaar ngeen ni seen liste suppléants yi mën na leen a may. non du question liste suppléants yi xamul leen ni 112 députés yi ñu ngi koy fal ci département yi te département yi benn amul problème. donc benn amul problème te 112 députés yi ñu ngi koy fal ci en plus de cela ñaari liste nationale parce que liste nationale Yewwi ak liste nationale Wallu aussi dafay continuer di di di di baax te même comme ni nga ko waxee suppléants yi ñu ngi continuer mais li am solo mooy assemblée euh, bi ñëpp dañu ni douzième législature bi ñu génn douzième législature bi ñëpp dañ ni moo yées ñeneen ñi bi moo yées mais comme ñu ngi wax naan douzième législature bi moo yées ñëpp naan treizième bi vraiment loolu kon bii di ñëw moom nañ ci la ñuy soog xam mais ñu yàlla rek di continuer di teg ay député ñu naan bii moo yees ñii ñoo yees ñii ñoo gën a loolu moom vraiment jàpp nañu jeex na te nag élection yi dañuy ñaan yàlla mu am ci jàmm euh, am ci dal parce que ñu ngi ci commencé dégg ay yëngu mais dañu ñaan yàlla lépp am ci dal. parce que ñun moom dañu gëm ni dañuy gagné. vraiment loolu sa coalition bi wala après dañ koy tasaat ku Euh, jàpp naa ne bi ñuy def lancement bi man maa nga fa teew loolu wax nañ ko mu leer naa ñi dañu ne coalition bi élection législative ak élection municipale ak élection législative la ñuy ànd ñoom coalition Yewwi élection 2024 ku ne mën na nekk candidat ku ne demal la ñuy continuer nekk mën na demal boppam loolu la ñu wax ci bi nga xam ne moom lañ def euh, lancement kii bi élection kii coalition Yewwi Askan Wi. Moustapha man ñu ngi lay remercier euh, rafetlu interview bi euh, di la ñaanal jàmm. <laughs> aussi di la ndokkeel daal ci disponibilité gi nga am. Mm-hmm. ñu dalal la tey jii ci. NGTV Sénégal. Mm-hmm. donc mbokk internet yi loolu moo fi ruusoon ci lu ñu doon jottali. Mm-hmm. ñu tëj ba beneen yoon incha allah. ok eh, maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax am mbégte nag vraiment kontaan naa ci dalal bi am naa ci amoon naa yéene gën a leeral yu bëree bari mais vraiment am naa ci mbégte maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf.